الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi julli ak a ñaanal ci sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ginnaaw loolu ñu ngi bugg a fàttali sunu bopp di leen fàttali muy ashura bisu tamxarit ashura wal maani al izam ashura ak ay mbiram yu mag آسورا يوم عزة وتمكين يوم مغفرة وتطهير يوم شكر وتحدث بالنعم ما أعظم معانيه وما أكبر عذاته لك فيه أيها المؤمن وقفات لا ينقطع نفؤها ومعين لا ينضب صفاؤها ورؤى تقر بها العين أفسح ما تكون رهابة ودع عنك دعوى أقوام أحدثوا فيه أقوالا وأفعالا ما أنزل الله تعالى بها من سلطان أيها المؤمن قف وتفكر وسر بيقين دربك إلى موعد ربك واعلم أن الأيام شواهد فاستوقفها تنطق لك ملء سمعك وفعادك mbokk yi Ashura bis bu màgg la lu tax bis bu màgg la borom bi tabaraka wa taala moo ci xewal ay xew-xew Ashura yowmu tamkin bisu dal la lu tax yàlla tabaraka wa taala moo ci dalal ay nit waaye yow mu magfira bi su njëggal la asura borom bi tabaraka wa taala daf ci jéggal ay nit waaye daf cee laabal ay nit nit ñooñu amul ngor amuk mat am jom dellu siwaat di sant borom bi tabaraka wa taala ci bis boobu muy bisu tamxarit bisu tamxarit dara gënu koo màgg dara gënu koo rëy ay waaraateem foo ko nat foo ko takk weesu na ko bu fekkoon ne bisu tamxarit bu ko doomu aadama yi dundee ba mu delsi danañ jàng waaraate yi nekk ci bisu tamxarit kon jullit ñi duñu juuyoog seen borom tabaraka wa taala yow sama mbokk jullit am nga ay taxawaay yoo xam ne war nga koo taxaw seetlu ci bis boobu ci ay njëriñam ay xéewalam yu dul jeex bu doon dex la ñu ne dex gi ndox mi dootul fer bu doon teen la ñu ne ndox mi dara gënu koo neex waaye yow sama mbokk julit am nga ay gis-gis yu sori lool yu wuuteeg cotiser xaalis jënd nag rey ko fees ko saam ko yóbbu sa kër togg cere xëy suba tusngalu jàkkaarloog jant bi naan da ngay xool Fatimatu bint Rasulullah yow sama bokk jullit war ngaa weesu foofu ci gis-gis ci bisub tamxarit bàyyil ay caaxaan ak ay bidaa ak ay bokkaale yu ay doomu aadama sos ci bisu tamxarit ñoo xam ne amuñu fenn fuñ ko jëlee amuñu benn dalil boo xam ne yàlla wàcce na ci mu leer ne leen bisub tamxarit war nañ cee rey nag war nañ cee lekk yàpp war nañ ci jal ci digg kër gi jal suuf bu mag bu nu reeree ba pare jël ay bool di ko këpp boroom kër gi jiite ko soxnaam tegu ci taaw bi tegu ci ba ki ci caat bi ci biir kër gi suñu reeree ba pare ñu jàpp ne war nañoo mën a dëpp jël ab dankub cere def ko ci bool bi néew yu jóge àllaaxira ñëw di reer si war nañoo sori foofu doomu ndey yi suñu gis-gis war na sori foofu ci bokkaale yu dul jeex jël ay bidaa ay gàllaaj yu ñuy takk wala ay aaya yu ñuy bind naan danga koy lekkaale kere qul naam wa antum daaxirun soo ko lekkee waalee doo dee boo deewul ci at mi dee ba ci at ba ca tegu rek laa budda min al mawt kenn ci ñun mënta rëcc dee soo deewul tey dee suba su ma deewul tey dee suba ñun ñépp ci bokk yem mbokk yi asura fi taarix asura ci istuwaaru islaam nanga ko laaj moom asura bis bi laaj ko bis boobu taxaw nettali la ay xew-xew yu ci xewoon soo ko laajee moom asura ana la ca xewoon mu yëgal la ne anna al aqibata liman ittaqa wa anna nasra allahi taala li awliyaihi qarib ala inna nasra allahi qarib wa kaana haqqan alayna nasru lmuminin boo laajee istuwaaru bisub tam xarit mu yëgal la ne bëre bi diggante mbaam la ak gaynde yàgg yàgg yàgg yàgg gaynde mooy jël victoire diggante dëgg la ak fen lu fen organisé organisé lu caaxaan rëy rëy rëy rëy rëy alxaqu yaalu wala yuula alayhi dëgg rek mooy féete kaw sunu melokaan yi nu mel sunuy caaxaan sunuy dugg sunuy génn lépp lu ñu mën a def dëggu yàlla gi rek mooy mujj lu waaye am doole ci ñun lu ñu noot noot noot tey lislaam luñ ko xeex xeex xeex xeex nañu yëg ne ndimbalul yàlla tabaraka wa taala ci ay xaritam lu jege la moom yàlla moo wax ci alquran ne man sama ndimbal man yàlla tabaraka wa taala ci samay ñoñ lu jege la yàlla moo wax moo assuré ne wa kaana haqqan alayna nasrul muminin lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg ñi ma gëm ñooy jël victoire ndax ñoom laay dimbali soo jàngee histoire tamxarit nga laaj ko mu taxaw wax la moom tamxarit wa anna alkaafira wa in garrathu muhlikatu zaman wa rakana ila quwatin ra'aahu biha al aglab wa zahara fa qaal man ashaddu minna quwa fa inna amruhu ila albawaar وقوته إلى الصغار ومنظر عينه شراب ما قاده إلا إلى هلكة وعذاب bu ñu jàngee histoire tam xarit ñu laaj ko ana ñi doon ngand ngandlu ana ñi doon dajalay jal ana ñi doon rëy rëylu ana ñi doon fëgg seeni dënn ana ñi doon xeex ak yonent yàlla yi ñoom ñëpp borom bi alag na leen tabaraka wa taala ab yéeféer lu mu rëy rëy rëy rëy lu mu am doole lu ay pexeem bari lu mu am xam-xam lu ay armement bari ci alkande rek la jëm am na ñu ne woon man ashaddu minna quwa am na ñu fi taxawoon naan kan moo nu ëpp doole nun ñooñu fu ñu mujj mooy seeni mbir yépp tey alku na yàlla rey na leen suuf lekk na seen yàpp seeni yax fënëx na seeni kawar tasaaroo na seeni yàpp ñoppatiku na borom bi tabaraka wa taala fa mu jaaroon ak ñeneen ñi jaar na fa ak ñooñu nit kuy jaay yàlla doole loo ngand ngand ngand bisa ngi ñëw yàlla dina la tuutali sa gis-gis lu mu gudd gudd gudd yàlla tabaraka wa taala dina ko gàttal sa doole lu mu bari bari bisa ngi ñëw yàlla dina ko wàññi fa firawna raa fi qawmihi wa mulki ma da'aahu an yunaadi wa yaquul wa ana rabbukumul a'la alaysa li mulku misr wa haadihi al anhaaru tajri min tahti firawna demoon na ba am doole dajale nit ñi ci ab estaat daan ne xamaluma leen yàlla bu dul man ku ma déggati ni mu ne mooy yàlla maa alimtu lakum min ilahin gayri ku ma déggati nga ni am na fi yàlla bu dul man danaa la rey fan la yàlla mu jóg moom yàllaa ko ottal wammat ko ba ci géej gi nëq ko ci ndox moomu saf xorom anamu tey te waxoon na maay yàlla kon loolu rek war na nu doy ñi nekk fii naan maay yàlla wirdi ba pare ne maay yàlla allahu akbar wirdi ne dangaa gis yàlla ana ñu ne woon gis nañ yàlla fan la yàlla mu jóg ñoom da leen a duma kon yow noo mën a nekkee yàlla ñu ne woon ay yàlla la ñëpp yàlla duma na leen te yow mii naan yàlla nga bisa ngi ñëw yàlla dina la duma nga xam ne doo yàlla yàlla mooy borom asamaan ak suuf mooy xayyun laa yamuut mooy dund te du dee ku dul moom bis dina ñëw ñu ne sa bàmmeel a ngi nii kon doo yàlla firawna nee na woon mooy yàlla dajale dooleem fa xashara fa naada fa qaala ana rabbukumul a'la fan la yàlla mu jéeg moom fa axasahu llah nakaala al axirata wal uula yàlla jàpp ko teg ko mbugalu adduna ak alaxira yàlla mu ne loolu du firawna rek de inna fi zalika la ibra loolu kéemtaan la pour yéen ñeen ji di ma dégg ku waxati li firawna wax rek ma jaar ak moom fi ma jaar ak yow inna fi zalika la ibra liman mu ne liman yaxsha mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala firawna dajale woon na dooleem ne ndax man nekkuma buuru misra dex yaa ngi di daw maa ko moom fu mu mujje fa iza aqibatuhu lam yaxsib laha xisaab saara biha asfala ma yakunu ardan wa mastata an yacluwa hatta ala almaa alladi tacluuhu adaafa alkainat xalqi ndox mi nga xam ne moo gën a suuf ndax fu muy nekk ci suuf rek ndox moo gën a suufe ci mbindeefu yàlla yi ndax ci suuf rek lay nekk waaye firawna keroog ba ko yàlla jàppee mbugal ko ci ndox moomu munul rëcc ndox moomu kon ana doole ji mu doon jaay fa axaznaahu wa junuudahu fa nabaznaahum fi lyam fanzur kayfa kaana aqibatu zalimin wa jaalnaahum aimmatan yadcuuna ila annaar wa yawma alqiyamati laa yunsaruun borom bi nee na maa ko jàpp moom firawna mi doon wax ne mooy yàlla ma nëkk ko ci ndox maa ko nëkk ba muy gis ay étoilu bëccëg yàlla ne ko da nga doon wax yaay yàlla tey dinaa la faat ma jox géej gi ndigal géej gi génne la doomu aadama yi kaw suuf yëpp danañ la tiim xam ne doo yàlla tey waxuma la ñu dem Égypte waaye ku dem internet rek gis Firawna ba léegi yaram bi mu ngi foofu est-ce que moom mooy yàlla mbokk yi yàlla mu ne def naa firawna ak ay mbokkam ak ñi yàlla yàlla lu tey ci kaw suuf di jéem a woote la firawna waxoon wa jaalnaahum aimmatan yaduuna ila naar def naa leen ñuy njiitu safara ëllëg yowmal xiyaam firawnaay jiitu ak képp ku doon yàlla yàlla lu jëm safara yàlla mu ne wa yowmal qiyaamati laa yunsaruun ëllëg yowmal qiyaam kenn du leen dimbali kan mooy taxaw ci kanam yàlla naan yàlla baalal firawna kan yàlla mu ne wa atbaanaahum fi haadihi dunya laana wa yawma alqiyamati hum almaqbuhin ci àddina bi suñ ne firawna rek ñu ne laanahu llah saa yi tuddee fi turu firawna ñu ne yàlla na ko yàlla sori yërmande gis nga kon ku yàlla yàlla yit di ngand ngandulu di jaay doole borom bi tabaraka wa taala nee na fii ma mujjeeg firawna rek laay mujjeeg yow fa axaznaahu wa junuudahu fa nabaznaahum fi lyam wa huwa mulim man yàlla maa ko jàpp moom firawna ak ay mbokkam ak ay soldaaram ak ñépp ñu mu àndaloon allié ak ñoom maa leen jàpp ñoom ñépp labal leen ci géej te man yàlla ragaluma résultat bi ndax kenn duma laaj lu tax nga def loolu ndax man faalun li maa yurid maay def lu ma neex wala yusal am maa yafal kan mooy dem ci yàlla naan ko lu tax nga def ko kenn mbokk yi haadal yow mu mooy bisu asura moo ñuy nettali ne xéewal feeg doomu aadama mu ngi sant yàlla tabaraka wa taala xéewal mu ngi sax ci moom lu tax Muusa alayhi salaam yàlla rëccal na ko bisu Asura yàlla labal Firawna Muusa génn sant yàlla kon yow mi am xéewal santal yàlla bul wax ne sa baay moo ko liggéey bul wax ne sa ndey moo ko liggéey bul wax ne say diplôme ñoo la ko may bul wax ne da nga am kattan bul wax ne intellectuel nga bul wax ne say pexe la bul wax ne ngand nga bul wax ne da nga am doole waaye yàlla tabaraka wa taala moo la ko may moom yàlla mu ne fa bi shukru taduumu ni'am wa tazid ci sant yàlla la xéewal di desete ca lay saxe wa iz taazana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum fa inna adaabi la shadid yàlla nee na man yàlla maa assuré man yàlla maa ko wax maa ko signé ku ma sant rek ma dollil la ku ma sant ma dollil la lu tax duñu sant yàlla da ngay déglu ci rajo yi liir ci journaux yi dégg ci xew-xewu dëkk bi danañ sant ku ne ci ay dajaloo ci ay ndaje ba mu def sant yàlla dañuy sant diw lu diw def lan la def bañ koy sant ndax moo indi taw bi ndax moo màggal nit ñi ndax moo wéral nit ñi lan la diw moomu def bañ koy sant deful dara lépp lu am yàlla moo ko tabaarak tabaraka wa taala moo ko def kon kan lañ war a sant ku dul yàlla la in sakartum la azidannakum bu ngeen ma sante ma dollu leen yal nañ yàlla won dëgg wërsëgal ñu topp ko yal nañ yàlla won neen wërsëgal ñu bàyyi ko alhamdulillahi waxda wala nacbudu gayra muxlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun ayuha alahbab falamma kanat annajatu li musa alayhi alsalam fi hada alyawm شارع بالسكر وتحدث بالنعمة بأن سام ذلك اليوم لله تعالى ولذا أيضا سامه نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه mbokk keroog ba yàlla rëccalee Moussa alayhi salaam ci bisub Tamxarit Moussa traversé géej gi moog banu Israil Moussa dajale leen ñoom ñëpp ne leen nanu sant yàlla Moussa nan la sante yàlla ndax ci ay tabala ndax ci ay xiin ndax ci ay taasu ak ay tam taaxuraan ndax ci fecc ak way la Moussa sante yàlla Moussa lan la sante yàlla tabaraka wa taala dafa woor mu digal ñi mu àndaloon noonu woor yonte yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam bi ko yàlla yónnee yàlla xamal ko bisu tamxarit li ci nekk ak la daloon banu Israil mu ne man dey damay santale Moussa yàlla mu woor ko mu ne jullit ñi nan ko woor loolu dong la loolu dong lañ war a def ci tamxarit amul leneen lépp lu ngeen def ci tamxarit lu dul koor dundal ngeen bidaa te bidaa réer la te réer ak boroom safara la yonent yàlla Muhammad moo ko wax de kullu bidaatin dalaala wa kullu dalalatin fi nnaar lépp lu doomu aadama def ci tamxarit lu dul woor bisu tamxarit ak woor ca ëllëg sa doomu aadama lépp loo ci def rek bidaa la xarit nag yi ñuy rey ak cere yi ñuy lekk ak suuf yi ñuy jalak bool yi ñu ciy dóor ak azkaar yi ñu ciy jàng ak julli yi ñu ciy def ak dara wéru ci ci lislaam dara wéru ci la ca wér mooy la yonent bi defoon mooy woor ko digal jullit ñi ñu woor ko jeex na feek bàyyi ñu bidaa sunu dund nii rek lay mel bidaa baaxul bidaa mooy lépp lu ñu jël dugal ko ci diine ji ci bokk ci yonent yàlla Muhammad bu fi bàyyi woon paanu soow paanu soow mi sotti na ci ndox sotti nañ ci ndox ba mu nekk milliards yi paan kenn xamatul soow mi lu muy nuru ndax dolli bi ñu dolli ci lislaam lu ci bokkul asura walwala haazal yawm asura ak far jullit ci bisub tamxarit tamxarit daf ko war a jàngal ne moom dafa war a far jullit dafa war a war a am équipe bu mu bokk mooy équipe bu ñu gëm yàlla yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam keroog ba mu ñëwee mu yëg ne firawna moo doon xeex ak Moussa yonent bi tànn na fu mu war far bu gaaw nee na man far naa ak yonent yàlla Moussa Moussa woor na bisu asura man dinaa woor asura ak taasura pour jàppale ko ñun fan la ñu far mbokk yi ku nekk fi nga toog laajal sa bopp yow bu doon tey mbir mi équipe bu football la yow ci ban ban mayo ngay sol fooy bokk est ce que doo sol yére bu ñu bind al kufru di xeex équipe bu tudd al islam wa anna alwala maqudun bayna almuminin bi imanihim wa in tabaadat amadu zaman wamtaddat tarafu almakan walmuminuna walmuminat baaduhum awliyau baad yamuruna bilmaaruf wa yanhawna an almunkar wa anna alkafirina la hazza lahum fi zalika alwala wa in iddaa man iddaahu buhtaanan wa zuura mbokk yi yàlla moo nu xamal ne ñun julli ñi dañoo war a far ak sunuy mbokk guddi ak bëccëg yàlla mu ne ñu gëm yàlla ñu góor ñu gëm yàlla ñu jigéen ñoo war a allié ñoo war a far ci kaw suuf di digle lu baax di tere lu bon est-ce que loolu am na. tey saa yoo génnee di digle lu baax léegi nga gis ay jullit yu la commencé semaine bi passé ngeen dégg ñuy xas imaam yi c'est parce que imaam yaa ngi taxaw. di contre estati xam ngeen ne estati amul place ci l'islam yonte yàlla Muhammad keroog ba ko yàlla yónnee li mu njëkk a def mooy ñëw dajji estati yi nekkoon ci biir Kaaba gi ñetti téeméeri estati ak fukk ak ñett yonte yàlla Muhammad daaneel ko ñun bu ngeen demee Ndar am na benn place Soweto am na benn porte millionnaire am na benn mamel yi am na benn buntu assemblée am na benn. buntu RTS sax am na bu fi nekk di sangu te du set loolu dong war na tax ñu xam ne baaxul guddeeg bëccëg mi ngi sangu te du set. julli dafa war a far mbokk yi al wal mu'minuna wal mu'minaat baaduhum awliyaa'u baad jullit yu góor yeeg yu jigéen yi ñoo war a ànd ci taxawal dëgg di ci jàppalante guddi ak bëccëg mbokk yi yéefeer amul ci faru l'islam place. donte ne su ko woote woo ku ko munta woote woo boo bokkul ci lislaam bokkoo cër boobu yàlla tabaraka wa taala julit ñi la ko jox wallazina kafaru baaduhum awliyaau baad illaa tafaaluhu takun fitnatun fil ard wa fasaadun kabir bur yàlla tabaraka wa taala nee na yéeféer yi ñoo war a far su ngeen ko deful rek ngeen xam ko mu nekk seen xal rek mu nekk kirim ci kaw suuf mu ngi noonu léegi yéeféer yi ak julit yi ñoo far yéeféer yi ñoo ànd ak jullit ñi far di dóor ay jullit saa yoo gisee tey américains yi allié pour bëgg a dóor ay jullit ci dëkk jullit la ñuy jaar pour dóor jullit yee ca des su ngeen demee Afghanistan fan lañu fan la américains yi jaar pour dóor afghan yi su ngeen demee Irak fan la américains yi jaar ak seen ñi allié ak ñoom pour dóor irakiens yi fan ci dëkk jullit yi kon ay jullit ñoo war a far ay yéeféeri ñoo war a far yàlla moo ñu ko wax ci ay aaya yu leer mu ne bu ngeen ko deful rek illaa tafaluhu sax la wax su ngeen ko deful jullit yi far yéeféeri far lan la ci yàlla wax mu ne takkun fitnatun fil ard musiba mooy am ci kaw suuf comme tey mbokk yi borom bi tabaraka wa taala xamal nu ñu ne wa inna zalimina baaduhum awliyaau baad wallahu waliyul muttaqin tooñkat yi ak yéeféer yéeg bokkaalekat yi ñoo bokk camp ñoo bokk mbooloo ñoo bokk équipe yàlla nag nee na man maay farandoo ñi gëm yàlla man yàlla ñi gëm yàlla dong ñi ma gëm dong laa faral yaa ayuha alladina amanu laa tattaxisu alyahuda wa nasaara awliya baaduhum awliyaau baad ee yéen ñi gëm yàlla ku woote ku woote yàlla ñan la woo ñi ko gëm lan la wax moom yàlla tabaraka wa taala mu ne bu leen jàpp yahudi ak nasaraan yi ngeen di farandoo ak ñoom ñoom ñoom ñoo far seen biir yéen bu leen far ak ñoom allahu akbar li leer na nañu waaye tey gëlëm nañ suñu xel yi lëndëm na seytaane këf nañu sori nañu yoon wi topp nañ ay bidaa topp nañ ay shirk topp nañ loo xam ne ay nit ñoo ko sos maa anzala allahu taala biha min sultaan yàlla wàccewu ci benn lay nañu ragal yàlla ci bisu tam xarit na góor ñi téye ay seeni doom téye seeni jigéen amul fenn fu ngeen jàng war nañu sol ay yére góor ñi war nañu sol yére jigéen jigéen ñi sol ay yére góor ñu yor ay tama sol ay masque dugg ci dëkk bi di tëgg di yuuxu naan dañuy taaju boon jànguñu ko fenn ci diine bidaa la amul cosaan ci diine jànguñu fenn ne dañu war a reer di këpp ay bool di ñaan jànguñu fenn ne dañu war a bind ay téere alxuraan di ko lekk naan ku ko lekkul doo gudd fan jànguñu ko fenn lu dul suñu caaxaan lu dul ay bànneexi bakkan lu dul rek du mooyu lislaam réere diine yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam loolu dong moo ñu dugal ci lii allahumma arina alhaqa haqan warzuqna ala ittibaai wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi allahumma ya musabbitu alqulub sabbit qulubana ala taatik allahumma fa nasaluka an turdana ala dinika maraddan jamila allahumma asina aqibatana fi lumuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة